Abdoulaye Thiam moom la ñu tàbb pour mu jiite li nga xamante ne moo di association internationale de la presse sportive ñu jagleel ko Afrique ndaxte kii di concurrent journaliste marocain bi daa mujjee retiré aussi course bi ba tax na mu doon sénégalais bu njëkk bu diriger poste bi ni mel loolu tax mu décliné li nga xamante ne moo di ay ambition bi si la ëppee doole euh, tey jii boo leen dégloo discours président sortant bi daanaka benn dërëm amu ci su bi te loolu man fas yéene wu ma quatre après wala su fekkente ne renouvelé ban ko en tout cas su may jógee foofu. man fas yéene indi fa leneen. teewul mu ngi lancé journal sportif Afrique yëpp ñu jàppale ko ci mission bi ndax mu mën a concurrence ñi nga xamante ne ñoo di waa Europe ak Amérique du Sud. fexe ba am association boo xam ne du ñu ñee tey jii américains yi du ñu ñee européens yi du ñu ñee asiatiques yi parce que boo xoolee ci biir AIPS képp ku nekkul Afrique pour nga jënd carte da ngay fay 40 dollars il n'y a que ñun africains qui payons 10 dollars ba pare encore ñu yore ay bor. loolu aussi wax dëgg yàlla dañ si war a taxaw ba képp ku ne day dugg ci comité exécutif bi ëllëg ci biir doo taxaw di daw ci ginnaaw président bi. beneen ambition boo xamante ne soxal na kii di président Abdoulaye Thiam moo di ñu dekkal partenariat yi nga xamoon moo amoon AIP SIFA. AIPS CAF ak AIPS FIBA ndaxte daa jàpp ne AIPS Afrique ñi ñu war di déglu lañ. nañ fexe ba rétablir suñu relation avec CAF mënuma comprendre tey nga lu yore AIPS amoo benn relation avec CAF soo xoolee Sénégal premier vice président c'est c'est un Senghor c'est général c'est un Congolais lu tax mënuñu déplacer Demba Kër toog waxtaan ak ñan xool ñun lan lañ leen a apporter ak ñoom tamit lan lañ mën apporter en terme de formation de renforcement ci mbégte ak contentement bu rëy. Abdoulaye Thiam dina am xamante ne bu nar a metti la ndaxte lii di AIPS Afrique daa toog lu yàgg doxul tamit amoon ay jafe-jafe pour am xaalis pour wéy li nga xamante ni moo di ay activité am